semaine mhm. euh, am na coowul boo xamante ne am na fi mhm. mu bett it ñenn ñi mhm. la tax mu bett ñenn ñi nag mooy que ñëpp nangu nañ ne que nekk nga koo xamante ne sa ak euh, vie bi englobé sa sa famille. Mhm. fexe nga ba nga xamante ne kenn du ko gis si sur la place publique. Mhm. waaye fan yi ñu génn nii gis nañ ne coowal gi mu ngi euh, opposé kii nga xamante ne mooy Abi Abi Ndour ak Viviane. Mhm. Euh, si réseaux sociaux yi nag dégg nañ ci lu nekk. ñu bëggoon xam fi mu ne nii nag yow mi nga xamante ne yow yaa leen njaboote ñoom ñaar ñëpp ana fan la mbir moomu toll ak yow yan tànk nga xamante ne moom nga si def comme jéego ngir fay fay diggante bi yëpp lépp de revenir à la waaw bi nga xamee ni que affaire bi dem na ba coow bi gën a bare man ci laay soog a xool détail ci laay xool détail ma woo abi sama sœur woo sama jarbaat bintu ne leen bëggatuma leen dégg ci coow li ngeen di wax walla dara te depuis boobu déggatuma leen Viviane yaakaar naa ni plainte boobu nga xam ne dégg naa ne def na ko dana ko retiré gi Euh, leneen li nga xam nag moom laa bëgg a wax. dañ noo yar def ci ñun ay valeur man ma doon taawu kër gi jàng ci loolu lu bare tur wi mag waaye famille bi yëpp jàpp ku nekk contribuer ñu am image boo xamee ni que macha allah kooku duma ma kenn di ko yàq du ma accepter kenn di ko yàq te kenn mënu koo yàq. ndax liggéey bu am solo la exemple boo xam ne la bu am solo comme yeneen famille du ma nangu kenn di ko yàq donc comme li tubaab di wax le linge sale se en famille euh, ñi ngi ci jéego yooyu te yaakaar nañu ne que incha allah lépp dina dellu si normal ndax loolu moo war te loolu moo mën a ne